boobu nag lañu dëgmal muy élection bu am solo ndax sénégalais yi am nañ kóolute gu rëy si ñun te gëm naa ni bu doon benn la dem bu yokk na tey ndax bi ñu toogee ba léegi laña taxawee sénégalais yi mooy wax leen dëgg ak jëf dëgg càmbar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi ba ak niñ ko yàqee